Assalamualaikum Mbacke sa géewe lay nuyoo kuréelu turum nak babakar mo réew turum mbokk yi lan moy saraxu atmi mi wess mi duguna na xam ngeen ni tay dal altine di fan ci 1446 ci hijriya hmm mel ni weer wi judd na ci burju saratan waye mu judd rek dugg ci burju asat kon dafa melni ni weer wi ci atmi ci burju asat la tàmbalee muy naar yu muy sawara léegi nag taweer yi buur ju sarataan mooy buur joom foofu la juddoo kon juddoo gi mu juddoo foofu am na lu muy bijji am na lu muy wax waaye nekk tàmbalee gi mu tàmbalee ci buur ju sawara bi itam muy naar yu muy lion moom itam am na lu muy wax léegi nag li nga xam ni mooy sarax yi nga xam ne moo ci war mën na nekk ak séq ak ginaar gu góor nga ah. xam gu xonq la wala gu weex hmm, wala xar mu weex wala bëy xar mu jigéen wala xar mu weex walla mu mu wala bëy wala nag nag wu xonq nagu jigéen wu xonq bu xaw a ndawee rek bu yem lol moy sarax yi ndax kenn ku nekk tam sa mbir ni mu tollu fofu la sarax yi di tollu waye ñenti mbusi sow itam baxna wala ginar gu weex même xong itam baax na ginaar ak siq lol moy sarax yi nga xamni ku ko def dina bax ci atmi ci walum bidiw donte nag am na yeneen téere ak yeneen wax lenen ay borom xam-xam ko wax waye li ci walum bidiw dal mom fi mu taxaw mooy atum xéewal la ak naataange waaye ak ndox mu bari nag yal nañ ko muurloo loolu mooy li nga xam ne mooy ci feeñ léegi nag ci jëm yi nag kenn ku nekk ak nag jëmm ni at mi taxaw ci yow loolu moom kenn ku ne si mbirum bopp la xay na loolu kenn ku ne jéem a xam moom at mi ndax lan la ci moom ndax am na koo xam ni ci at mi xéewal la ci am koo xam ni jafe-jafe la ci moom am koo xam ne wan loolu moom leneen la waaye daal li nga xam ne jamono ji moom loolu lay lool lool noonu lay taxawee mooy at mi moom tubaarkàll xéewale na ko defee nag kon ku man rek mu saraxe ñeenti mbuus soow jox ko ñeenti xale jigéen wala bu dee ku man ginaar baax na ba ci mburu juróomi mburu juróom ñaar juróom-ñeent yooyu yëpp bu ko defee dina baax incha allah yal yàlla nangul te defal nu fekk waat déwén ca tal ko ak Seexul Xadiim waaleykum salaam wa rahmatulah